sëriñ saalihu mbàkke sëriñ saalihu mbàkke mi ngi gane àdduna bisub àllarba fukki fan ak ñett ci weer wi di weeru digg ci atum 1333 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ñett ci weer wi di weeru digg ci atum 1333 ci gàddaay gi ci dëkk bu sell boobu di njaareem dëppook mercredi 22 septembre 1915 mercredi 22 septembre 1915 sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke doomu soxna faati jaxate la ak ku baax ki sëriñ tuuba xadim rasuul keroog bi mu feeñee jamono ci njaareem sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ muhammadu jóob dagana la woolu ngir yónni ko ci soxna faati jaxate ngir mu dem fa kooku feeñ jamono wutal ko aw tur sëriñ tubaa seexul xaddiim mi ngi doon wax sëriñ muhammadu jóob dagana bu demee mu tudde ko saalihu sëriñ muhammadu jóob dagana moo wutali woon aw tur kii di sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke ba mu demee mu tuddee ko saalihu ginnaaw bi sax def na ak way ci feeñu jamono sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke googu ñu teewlu way yi ci sëriñ muhammadu jóob dagana defoon ginnaaw bu mu wutalee sëriñ tubaa seex saalihu aw tur ba noppi صالحا باخ لنا جار به صالحا أبقاه صمصا في شمع دهره يدخل منه وجهه كالها أبقاه مكملا له هديه mubaarakan mustaxaxan saaliha sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke am na ñu mbokkal kii di soxna faati jaxate ñu ràññee ci sëriñ Abdul Quddus Mbacke ibnu soxna faat jaxate ibnu xaadimu rasul soxna Tahiratu Mbacke bintu soxna faat jaxate bintu xaadimu rasul ak sëriñ Abdul Baaxiyu Mbacke ibnu soxna faat jaxate ibnu xaadim rasul ak moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ibnu soxna faat jaxate ibnu xaadimu rasul kon ñaar ñu góor la bokkal waajur wu jigéen ak kenn ku jigéen ak moom muy ñeent wootee dal lii di alxuraanul karim waajuram sëriñ tuba seexul xaddiim moo ko laaj lu ci njaareem dalal ko lii di alxuraanul karim ci dëkk bu sell boobu di njaareem ginnaaw bi nag la woolu nijaayam sëriñ xamsatu jaxate jébbal ko kii di sëriñ tuba seex saalihu mbàkke ginnaaw bu mu ko waxee nag ay wax ci moom ci biir daara jooj nag am na ku ñu doon wax sëriñ alsaan jaxate moo jàngal kii di sëriñ tuba seex saalihu mbàkke alxuraanul karim ba mu bind lii di kaamil bi ci ginnaaw bu fi sëriñ tuba seexul xaddiim di sëriñ tuba Mbàkke sëriñ soen bu Mbàkke ak kii di sëriñ Abdul Samad Mbàkke ñoom ñeent ñoo ñu fekkante nañ ci daaray sëriñ Amsatu Jaxate jooju waaye nag laata sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke di bind kaamilam mook sëriñ bu Mbàkke fekk na kii di Cheikh Abdul Ahad Mbàkke bindub kaamilam ba noppi waaye seen nijaay jooju di sëriñ Amsatu Jaxate nag dafa téye woon kaamilub Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ngir bëgg nag bu ñaar ñiy bindeeb kaamil ba noppi mu fob ñetti kaamil yi jébbal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim laata ñaar ñii di bindub kaamil muy sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke ak kii di sëriñ soen bu Mbàkke waaye sëriñ Touba Seexul Xaddim génn lii di àdduna lool moo tax kaamilub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Touba jotu ci waaye ginnaaw bu fi sëriñ Touba Seexul Xaddim bàyyikoo nag la sëriñ Amsatu Jaxate mi nekkoon seen nijaay fopp ñetti kaamil yooyu jébbal seen mag ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke kon kaamilub alxuraanub sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke Cheikh Modou Moustapha Mbacke lañ ko jébbal ci tundoo di keroog bi sëriñ Amsatu Jaxate ñëwee ci Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ci tundoo di dane ko kaamilub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi nii bu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mi ngi nii ak kii di sëriñ soye bu mbàkke seen waajur xaadim rasool nag lii la ma santoon ci ñoom gisatuma seen waajur yooyu nag yow mii yaa fi seen waajur kon kat ñoom ñett ñii seen ñetti kaamil yaa ngi nii kii di cheikh mamadou moustapha mbàkke jëlaat na kii di sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke wàcc ko ci daaray tundoo di jooju ci ku ñuy wax sëriñ ahmadu muxtaar jeng bu guyaar mu wéyal am njàngam moom sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke ci jëmm jooju sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke def na ab diir ci dëkk boobu di tundoo di ci loxoy sëriñ ahmadu muxtaar jeng bu guyaar ginnaaw bi nag la ko cheikh mamadou moustapha mbàkke jële bàyyiwaat ci loxoy sëriñ ahmadou muxtaar jëng bu guyaar jox ko sëriñ habibu mbàkke imaam ngir mu wéel am njàngam ci wàllu lii di xam-xam ginnaaw sëriñ habibu mbàkke imaam ci tuubaa yóbbuwaat nañ ko njaareem nag ci sëriñ muhammadu dem bu njaareem gën a wéeyal nag lii am njàngam ginnaaw sëriñ muhammadu dem bu njaareem itim sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke dem na ci ku ñuy wax sëriñ moor saasum jaxate sëriñ moor saasum jaxate mii nag moo nekkoon caatum baay ma jaxate kala kon ci kii la sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mujjee jànge mu del si waat magam cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko jël fas yéene koo tarbiya ndax la waajuróom wax xaadim rasool kat defoon ci moom moomu mu fas yéene koo def ci ay rakkam cheikh mamadul moustapha jaarale ko fu ko waajuróom wa jaarale woon muy tàmbalee sanc nag lii di ay dëkk ci atu 1934 la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke jox ndigal mu dem sanc dëkk bu ñuy wax lu mbel sayel ci atu 1934 boobu ba nëgën itam la sanc dëkk bu ñuy wax gott sëriñ tubaa cheikh saaliyu mbàkke Bougane sanc na fu ñuy wax Gelor moom Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke sanc na fu ñuy wax Njenne sanc na ay daara itam ci dëkk bu ñuy wax Ngaabu Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke sanc na fu ñuy wax Ñaaru sanc na itam fu ñuy wax Daaru Salaam ba tey ci sancub Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke sanc na fu ñuy wax Njàpp Ndal ak Xabbaan sanc na fu ñuy wax Lagan sanc na itam fu ñuy wax ay daara ci dëkk bu ñuy wax Njurul Xelkom itam moo ko gor ci fukki daara ak juróom ci atu 1990 jàpp 1991 ci atu 1992 itam lañ sanc ñeneen ci quartier bii di jannatul maxwa fa la hôpital bi gën a rëy ci Touba sax nekk lu ëpp itam ci ak njabootam itam ci gox boobu lañ dëkkee di jannatul maxwa sanc na itam beneen quartier ci Touba itam muy tuuba njaareem moom lañ doon wooyee boroom mbuur moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ak yeneen ak yeneen i dëkk yu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke gor ay daara ndax ku lim li sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke def daa juum ci dëkk yooyu mu sancoon ci nekkinug Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke lépp lu fa masaa ñor nag kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke la koy jébbal ndax Touba Seex Saaliwu Mbàkke kat xam ne ne soxlawul dara te bis dana ñëw lépp lum soxla ñu saafaraal ko ko ndax kat ci loolu la ko magam ji Cheikh Modou Moustapha Mbàkke tàggat mu nekk nag ku Cheikh Modou Moustapha Mbàkke préparé ak mbooleem nag magam yi nga xam ne ni ñoom la nekkoon ci seenu xilaafa mu sax nag di liggéeyal Cheikh Modou Moustapha Mbàkke jàppe ko comme xaadim rasul ba ci atu 1945 magam ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke génn lii di àdduna Sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke foobaat léppam jébbal ñaareelu xalifa waajuram di Cheikh Mamadou leeral mbàkke def ko sax nu raw ni mu defoon mu mamadul moustapha mbàkke ndax xam na ne kat bis dana ñëw ñëpp yaakaar ko mu sax ci cheikh dul faadal mbàkke di ko liggéeyal jàppee ko itam comme xaadim rasool ba ne fi cheikh dul faadal mbàkke bàyyi ci atu 1968 mu jël léppam nag jox magam ji nga xam ne nii ñoo bokk benn maam muy njaxate te itam lu ëpp ci ak ndaw itam ñoo ko defandoo muy jàng alxuraan te ñoom ñetti itam la seen nijaay ja fobandoo seen ñetti kaamil yitandoo seen mag ji cheikh mamadul moustapha mbàkke itam fuñ jaar àndandoo fa itam ci wàllum njàng waaye bi cheikh abdou lahat mbàkke toogee li di xalifa général de mourides itam mu koy xoole nam doon xoole cheikh modou moustapha mbàkke cheikh fàllilu mbàkke ba ci moom cheikh abdul ahad mbàkke def ko ne waajur boole koog itam def ko mag di ko liggéeyal sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke soxlawul dara nammul dara ndax xam ne nakat bis dana ñëw lépp lu mu soxla muridi saafaraal ko ko ci lool nag la sax ci ay ron magam ba ni fi sëriñ tubaa cheikh abdul ko mu topp kii di cheikh abdou xaadir mbàkke génn àdduna sëriñ tubaa saaliyu mbàkke mi ngi toog kalifa général des mourides bisub dibéer fukki fan ak juróom ñaar ci weer wii di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi dibéer fukki fan ak juróom ñaar ci weer wii di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche fukki fan ñett ci mois de mai ci atum 1990 dimanche fukki fan ñett ci mois de mai ci atum 1990 mu wuutu magam ja cheikh abdou xaadir mbàkke murit yépp nag di ko xoole xaadim liggéey nag moom sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke ngir nag lu jariñ murit yépp mu jaar nag fa ay magam jaaroon fas yéenee taxawu nag lii di dëkk bu sell bi di tuubaa ci wàllu liggéey mu dolli nag lii di quartier tuubaa yi ba mu gën bari ngir taalibey waajuramam yi mën a am lii di kër dëkk bu sell bii di tuubaa sëriñ tubaa seexul xaddim ak daaru la fi bàyyi woon ci misaal benn kër rek la fi bàyyi woon am na sax ay ñenn ñenn ñu fi dëkkoon waaye daanaka rek mënoon nañ koo jàppe génn kër muy kër sëriñ tubaa seexul xaddim gi kii di cheikh mamadul mustapha mbàkke bi mu fi nekkee dëkk bi kenn nattu ko daanaka daarul xuddoos rek moo ëppoon li muy dox ci ak nekkinam ndax sax booba mënoon nañuy wooyee daaru xuddoos lii di Touba bi Cheikh Mamadul Faadal ñëwee nag la natt lii di dëkk bi di Touba tàmbalee joxe nag lii di kër yi ku bëgg a dëkk ñëw dëkk ci atu 1958 ba atu 1968 Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke 20 000 parcelles la fi natt bi ko Sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke wutoo ci jal bi moom tim wéyal na natt yi ngir muritu Sëriñ Touba Seexul Xadiim mën a am lii di kër moom 80 000 parcelles la nattoon ci atu 1968 ba atu 1989 bi Cheikh Abdou Khader Mbacke toogee ci jal bi yàggu fi dara ndax fukki weer ak benn yu teg ñaari fan rek la toog ci xilaafa gi laataa muy tàmbali ab liggéeyam suñ borom jël na ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke bi mu ñëwee toog jal bi moom itam fa ay magam jaaroon rek jaar na fa fas yéene yokku nag dëkk bu sell bii di Touba ba muriti waajuram yi mën a am fuñ dëkk mu dooli nag 101000 parcelles ci atum 1990 ba 2007 101000 parcelles la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke natt ngir séddale ko muritu Serigne Touba seexul xaddiimi mu taxawu gone yi am ci ñoom yërmande ba tax na gone yépp nag suñ borom xiir leen ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mu liggéey loo leen nag ci wàllu daayira lu jiitu nag sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke di toog xalifa général des mourides daayira am na waaye nii daayira yi baree ba xiir ko ci ndaw ñi ba ndaw bu ne taxawal li di daayira sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke moo tax ndax bëgg gum bëggoon gone yi ak yërëm gum yërëmoon gone yi ba tax na suñ borom yi a ñoŋal nag dëkk bu sell cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyi woon na ko fi ba tuubaa gën dolleeku ci wàllu kaaraange lii di kaaraange itim dolliwaat na ko ndax bi fi sëriñ tuubaa cheikh abdoulahat mbàkke di nekk poste gendarmerie bi rek la fi bàyyi woon waaye sëriñ tuubaa cheikh saliwu mbàkke moo fi indi nag lii di poste police bu jannatu bi ak yeneen ak yeneeni poste yu nekkoon ci dëkk bu sell bii di tuubaa lu mel ni garage yu daaru ak faneen ak faneen ci tuubaa ba tey ci wàllu kaaraange sëriñ tuubaa cheikh saliwu mbàkke taxawal na genn kuréel gu tudd safnetul amaan ci njiitul jarbaatam boobu di sëriñ muhammadu loo sàmm nag lii di war may Touba ndax lu ko jiitu kat kii di magam ja Cheikh Abdou Lahad Mbacké tere woon na ci dëkk bu sell bi lépp luy mbumbaay a xumbaay ak rumbaay loola itim Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké bi mu toogee wéyal na ko ngir di wax na itim war ma la joo xam ne nii war nañ koo jox ku baax ki sëriñ Touba seexul Khadim loola itim taxoon na mu taxawal daayira bii di Safinatul Amaan ci nekkinam ngir muy sàmm kaaraange lenn ci ñaaw te fii murid yi defante ci seen biir ci Touba wàllu wér-gu-yaram itam mu dolli ko bii di Touba xam ngeen ne bi fi Cheikh Mamadou Fadal di nekk benn poste de santé rek moo fi nekkoon muy bi nekk ci Touba 28 ginnaaw poste de santé boobu bi Cheikh Abdou Lahad Mbacke toogee xalifa général des Mourides la ñu tabax hôpital ndaamaatu ginnaaw Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag hôpital Ndamaatu boobu ak poste de santé Touba 28 bi rek ñoom ñoo fi nekkoon xanaa ak ay poste de santé privé bi mu toogee xalifa général des Mourides nag ci ndimbalul daayira bi ñu tudde Matlaboul Fawzeyni lañ tabax nag hôpital bi gën a rëy ci Touba muy Matlaboul Fawzeyni mu ci quartier bi nga xam ne ni moom moo ko gor muy janatul maxwa ci quartier bii di njaxaay itam Touba nekk ci daaru xuddoos tabax na fa itam beneen hôpital muy hôpital biñ duppee doomam ja sëriñ Mbàkke Madina ak yeneen ak yeneen ni de santé yum tabax ci dëkk bi moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke ci wàllu wa sëriñ Touba Cheikhul Xadim xasida googu mu bindoon ngir di ci aar Touba muy Matlabul Fawzeyni doon na ca ñaan lii di ndox sëriñ Touba Cheikh Saliou ndox mi mu tudde ko ay nu raxmati ci ak nekkinam ginnaaw bi lañ soppi tur wi tudde ko maawu raxmati mu fop sëtam bii nga xam ne ni doomam moo ko meññi muy sëriñ Alioune Mbacke ibnu mu dul Moustapha Mbacke di sëriñ Cheikh Alioune jébbal ko ko wàllu njënd ak njaay muy yaxantu marché yi itam mu dolli ko ba tabax nag marché bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest muy marché bi nekk ci jannatul maxwa mu xam ne itam sëriñ Touba Seexul Xadim daana wax ne lépp lu waaye di def itam na nga ko def ci jumaam ji ak lii di màggalam gi mu dooleel màggalu Touba war cee ñëw mbooleem tarixa yi nga xam ne ni itam dañoo bokk ak ñoom lislaam bi teñ nekk ci réew mi ak bitim réew saa bu màggal jotee itam ñu màggal si mu wut nag daayira bu leen di sàmm way màggal si yooyu mu tudde ko raw rawdu rawaayin jumaa ji mu yokk ci atum 1994 fob nag société bu tudd CDE jox ko li di liggéeyub jumaa ji ngir ñu xolliwaat jumaa ji defaat ci yeneen karo yoo xam ne ni lu jamono ji tàng-tàng karo yi boo ci tegee sa tànk day mel ne glace muy liñ ñu woon marbu yi di liggéey bi waaye nag demoon nañ ba mujj gi ak réeroo am ci diggante sëriñ Moustapha Saliou ak société boobu di CDE ci yoon lañ mujj sëriñ Moustapha Saliou lim doon topp société bi moo jort na ne daal marbu yim ko jox bokku tëg nag yañ commandé woon muy original bi deuxième façon bi la fi indi loolu itam sukkandiku nañ ci ba lii di wàllu inauguration jumaa ji ci liggéeyub sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mujjul am kon jumaa ji ci diirub li ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke doon yokku ci wàllu marbu yi mujj ñu inauguré jumaa ji ndax coow loolu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke laaloon na itam lii di cheikh ibrahima faal bi muy sooroor bu mag bi guddaayu sooroor bi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke yokku ko fi làmp faal bi nekk muy fi ñu defoon làmp bu bleu bi loolu itam la yokkoon lu tolloo ñeenti mètre jàpp ñetti met ngir làmp bi gën a siggi sooroor bii di cheikh ibrahima faal muy sooroor bu mag bi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke kon yokku ko waaye fi làmp bi nekk rek la yokk ñeenti mètre guddaayu sooroor bi nag cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi ko bàyyi woon ci 86 mètre virgule 82 centimètre kon ba nëga ni 86 mètres boobu virgule 82 centimètres bi moo fi nekk ba nëga ni war may dëkk bi itim ba tey ci kuréel googu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke defoon ci jumaa ji taxawaloon na fa benn daayira nag buy sàmm war may jumaa ji ñu tuddee ko daayira muqaddimatul xidma ginnaaw yokkub jumaa yi 1994 boobu te mujjul am lii di immigration ndax coow lu ci amoon sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke itim ci 2005 tàmbaliwaat na baneen yokkub jumaa ji muy fas yéenee karoon ak lii di jumaa ji ak yokkaat lii di jullikaay bi miirewaat lii di jumaa ji xam jumaa ji bu njëkk amul woon lii di miir bu ko wër fu waaye neex ngay jaar dugg ci jumaa ji waaye bi sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke di yokkaat jumaa ji nag ci 2005 lañ ko miire waale kon ci yokk boobu société bu tudd bawal construction lañ ko joxoon sëriñ naa mbàkke moom soxna maam faati mbàkke moom soxna maymunatu mbàkke laylatu xadar ak kii di sëriñ mustapha mbàkke fàllilu lañ ko joxoon waaye laataa liggéey bi egg sëriñ seexuna mbàkke génn na àdduna sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke génn na àdduna ba tey liggéey boobu doomam jiitu cheikh mamadul lamin baara mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke bi mu toogee xalifa la ko eggale boroom yërmande ja sëriñ tuubaa cheikh saaliwu mbàkke nekk na ku kii maan ci biir murit yi lu waaye wax mu ne unhu bëggul benn murit mere ko lu waay jëfitim mu toog seetaan suñ ko waxee rek mu ne lu dul lislaam awuma ci yàq awuma ci defar ba tax na lu bare bari xew na ci yoon wi waaye ba tey kenn déggul kàddu sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke dem nañ ba ci wàllu politique ñu fab turam def ko ci liste bii di bu pds ngir di wax ne moom mooy xëccoo dëkk bu sell bi di Touba waaye ba nëga ni rek kàddoom jugul ndax jort na ne su waxee am ñu ko mere bañ gu ko mere googu taxoon na lii di daayira Matlabul Fawzeyni ginnaaw ñu fa amee seen coow lu metti loolu bañ duma fi ay nit ngir daayira bi gaañ fi ay nit lu ne itam Sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke na tekk heure bu ñu waxee rek mu ne su ngeen waxtaanee ba juboo rek lu ngeen wéyal maa nga ca dem nañ ba sous préfet bi fi newoon di Bafodou Kalo demoon na sax ba tëj kër Sëriñ Touba gi nekk ci Daaru Marnaan ngir di wax ne wàllu kaaraange lay sàmm Cheikh Saalihu Mbàkke yëkkatiwu ci kàddoom ndax fam nekkoon rek la nekk lu dul lislaam amu ci yàq amu ci defar te lu ko jiitu nag sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dajale woon na mag ñi ci njaareem ngir di leen wax ne nañ ko moytu ci taalibeem yi taalibe yi itam nañ ko moytu ci mbokki boppam yi ndax amul lu dul ñoom ñaar ñooñu kon nag na kenn ku ne moytu sa moroom ca ca des loolu itam sëriñ Tuubaa Seex Saalihu Mbàkke déggewu ko woon nopp yi tëx ba tax na daana ko jëfe lu murid yi jotee jotee itam mu ne waxtaan leen ba juboo rek ndax su ne diw bàyyil diw loola sax mën naa naa nekk waaye bu ëllëgee nag suñu laajee kooko dana na sëriñ bi moom a tax a bàyyi te loolu itam est-ce que arrangé na ko baax ki sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke jaajëf borom yërmande ji ba tey yërmande jooju sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke amoon daayira bii ñu tudde Hizbut Tarqiyyah ci atu 1998 amoon nañ fi coow ak lenn ci sëti ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim coow loolu sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati woon na ci kàddoom jaarale ko ci taalibeem bii di sëriñ Saaliwu Ture ngir mu wax ne daayira boobu jëf jooju mu jëf moom àndu ci te daayira daayira bi bett na ko lool ci déclaration boobu sax demoon nañ ba tas ci daayira bii di isbu tarxiya ci coow loolu ñu amoon na kii di sëriñ Moustapha Mbàkke moom Seex Saaliwu Mbàkke ay weer lañ ci teg daayira ba mujj nañ lu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke mujj na leen jéggal ndax xam ne ne que lépp njaboot gi la te moom mooy yaakaaru njaboot gi jamono ji ndax moom la ñuy xoole xaadim rasuul kon ba tey yërmande sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke mën nañ ko xam bi ba tax na bu ëllëgee ku sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke yayool yay la ndax liggéey loo na murit yi ci côté bu ne mu gor nag lii di xelkom ci atum bépp murit bu doon wax ne bu ma fi fekkoon sëriñ tubaa seexul xaddiim bu ma liggéey loo ma liggéey mu liggéey loo la ngir bëgg rek murit yi jariñu ci atum 1991 xel xelkom jim njëkk a woote ginnaaw bu murit yi demee ba dikk sant na leen gërëm leen lool di leen wax ne pastif biñ am ci tool yi de moom jaaxal na ko lool waaye nag doon liggéeyloo waaye nawet bi sax jot na nañ jéem a dem nag ci seen tool yi bopp yi bay ko ndax kat loolu rek moom mooy ndigal li sant na leen nag ba fu sant yem ñu teewlu kàddu yi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati woon ci atum 1991 bi mu njëkkee yebal murid yi xel ko ngir ñu dem gori la nga xam ni moom mooy tool ya asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maa ngi bokk ci yëpp leen siyaare di leen baru àq tey bari àq maa ngi bokk siyaare bi mbir yëpp ñu sant sant yoon gone xanaa gone te ak démb mais sant na ci liggéey bi ñu leen doon liggéeyloo ci àll bay ci xel koom war koo gor war koo setal yooyu bu ñu ñu ngi si bu war ko waa ngi nii liggéey bi dafa ëpp liggéey menn at setal bi ëpp na menn at bàyyi ko it ëpp na menn at mu ci def nag ren doy naa def ñu jël métti gën a jox lépp def na mu ci def nag yéen mën a fexe ba seetali ji lu may sa liggéey bu soobee yàlla def na ñu dem seen tool yi bopp yi ndax seen tool yi wutul ak sama tool bi si man dara kon nag bu ñu ko gan koor ñu dem nag dem dem ci seen tool yi bopp yi bu ñu fekkee ñu soog a àgg li ci def ñu sant bu baax a baax cant koo a ne ji am na fu mu doy waaye amul fu mu yem waxuma ne jëf ji ni mu réy waaye pastéef mi ci ànd ak yii ji soo barewoo gi maanaam ku ne la nga def wàcc na ay warax loolu ñu wàcc loolu matal matal li ñu liggéeyee loolu pastéef boobu xër na amul payam kenn amul kenn waaye yàlla ci suñu na koo defal te a bopp yi leen kon kàddu yooyu la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke yëkkati woon ci atum 1991 muy bi mu njëkkee lii di xel koom ca la mottali kàddu yi nag ma ngay sant bu baax a baax lii di nguurug Sénégal nee na suuf soos kat bu ci jotee ñoom ñoo tax mu jot ci kon nag mi ngi leen di sant ci cofeel géeg bëgg googu nguurug Sénégal am yéene jox ko suuf si ci at mi ko jiitu di atum ci la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke mbàkke toog xalifa ci ñeenti weer yu jiitu ak xilaafaam ci weer ba nag ci la njëkk a organiser màggalu Touba muy 18 safar mu tombé woon ak fukki fan mois de septembre nekkoon altine ci atum 1990 ca cérémonie officielle u màggal googu Serigne Touba Cheikh Salihu Mbàkke ginnaaw bu mu saafonteeg muri di ñaanal leen ma ngi leen di delloo ci suñ borom di leen xamal ne suñ borom tabaaraka wa taala képp ku ko fàtte ku ne yërmande gi mu am ci jaamam moom moo tax te suñ borom tabaaraka wa taala képp ku mu fàttali dutoo tal lu dul moom ngi ñaan suñ boroom nag yërmande ak njéggalam di ko ñaan na xéewal yi yim am mu sotti ko ci askan wi ma ngi koy ñaan itam ak jaamu yàlla guñu nangu ay xéewal itam na ko sotti ci askan wi mbooleem jullit yi lépp nag ma ngi ko ñaan ci darajey xasida googu muy waaja a jàng muy rabbi bi maa yasroon kon ñu teewlu kàddu yi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke njëkk a yëkkati ci màggalu Tuubaa di cérémonie officielle di màggal gi mu njëkk a ci xilaafaam te yàlla ku ko fàtte rek. yërmande ma tax. yërmande ma tax. ndax kum fàttali duutoo duutoo tal lu mooy moom. ndax kum fàttali duutoo tal lu dul moom. di ko ñaan yërmandeem ak um njëggalam. di ko ñaan yërmandeem ak um njëggalam. di ko ñaan xéewal yu ñu daj ñun ñëpp ñun jaam ñëpp. di ko ñaan xéewal yu ñu jaamu yàlla. akub jaamu yàlla. yal nu yàlla xéewal. yal nu yàlla xéewal. yàlla na nu dimbalee. yàlla na nu jariñ. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ndimbal nu matale ñun ñëpp. ci barkeb xasida ak sëñ Touba ji may jàng. ci barkeb xasida ak sëñ Touba ji may jàng. rabbi bi maa yasarul azaan qad fajaar bi jaahi afdali man qad lajaar di rabbin karimi laa sarika lahu sadri yawman nuran an malaa محمد صلوات الله أبد عليه بحسبه كلي به قرأ أبو الله الذي أمت مواهبه بجملة الخلق ويختار من برأ أشهده جل أعظاما وكرما يتكرم هادئ وكل من لغا بريئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يثني عن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المسرى عن كل مبصرة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خير احم جميع الورى nga xam jami alwara hadi an rada ya malikul mulki ya man jalla an kawdin nga xam jami alwara ya hadi an rada ما قدرناه القلب من قرار جاه xasida googu nag di rabbi bi maa yasrawu bi Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke di doog a toog xalifa général xasida googu itam bokkoon na ci xasida gi ko doon dimbali ci ab liggéeyam ñii di mool ay xasida rawatina ñu koy wecceeku duñ ma ne mukk Abdourahmane Dioum na ndax ci xilaaf ak sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke xasida gi bokk na ci li ëppoon luñ daa wecceeku ci askan wi ndax moo daa jàppale sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke ci xilaafaam sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke tim daana ko jàng lu bare bari ci nekkinam kon jërëjëf sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke ba tey ci kàdduy sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke am na bis ci njaareem ginnaaw bu mu fa demoon ci am ngan daayira bii di is bu tarxiya ñëwoon def ci ab ziyaar ci moom bisub keroog ginnaaw bu daayira is bu tarxiya jàngee lii di xasida yi ba noppi sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke ñaanal na leen leen wax ne kat passif boobu ñu àndal ci njàngum xasida yi moom yéem na ko mi ngi ñaan nag ñu daje ceeg taw féexi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak yërma yërmandey suñ boroom doon na leen fàttali waalee nag ne am na benn bis benn waay ñëw ci moom di ko wax ne jàngkati xasida yi de dañuy yàq rek lii di njàngum xasida yi ndax mois bi kat rawatina ci fu leen neex lañ koy tàmbalee ci am njàng sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke nee nag bisub kero ma ngay wax waaja di ko wax ne lii di xasiday sëriñ tubaa seexul xaddiim de fépp fuñ koy jànge kenn du fa yàqoo ma ngay wax ne sëriñ tubaa seexul xaddiim mas na wax ne bu fekkoon na xasida yi de ak njanaaw la muy am picc la jàngkat yi ñoom ñooy laaf ñiy déglu nag xunq yi kon nag képp kuy jàng xasida doo nekk fu ñuy yàqoo kon jàngkatu xasida yi nag war nañoo góor góorlu ci kàddu yooyu sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati woon ngir jagleel leen ko ñu teewlu kàddu yi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati woon ci njaareem ci bisub samedi fukki fan ak juróom ñett ci mois de octobre ci atum 1997 am ko ne woon daal hmm. bi xasida yi dañ ci réew mi rek mooy dañ ko yàq li ngeen ko yàqee rek ko yàqee te dara wax na ni de. te sëriñ yi bu dee ñanaaw. Ah. jàngkat yi ñooy laaf yi déglu kër ñooy ñooy dong rek. jërëjëf ñëpp la yàlla nañ ci fekk. amiin ak léegi sëñ Tuubaa bi ñenn. gërëm leen jooju jëriñ mu amoon ci mbooleem jullit yi rawatina murit yim séexal sëriñ tubaa seexul xaddim ay magam itam noonu leen bëggee woon te ay magam noonu lañ ko bëggee woon ak lii di ay rakkam ba tax na ay turandoo am na ko ci ëtëb njabootu sëriñ tubaa seexul xaddim bi ndax cheikh mamadou moustapha mbàkke tudde na ko doom muy sëriñ saaliyu mbàkke ambassadeur doomu cheikh mamadou moustapha la sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacke la ko tudde Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke tudde na ko doom Cheikh bu Mbacke tudde na ko doom Serigne Mourtada Mbacke tudde na ko doom mag ñi toppoon Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu ci bari itam tudde nañ doom kii di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ngirug jikkoom taalibe yi itam kenn demul ñu des ndax saaliw yu góor yi ak saaliw yu jigéen yi bari na lool ci askan wi ngir bëgg guñ Saliou Mbacke yërmande jooju mu amoon ci yoon wi noonu itam ni li leen daan nemmeekoo moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ngay taalibe wala ngay kilifa néew na lool nga ziyaare ko ba dem te Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke dolliwu la wala mu xamal la loo xamul woon kilifa yu baree bare itam ziyaare nañ ko ba dem mu ne leen bu leen fii géej ndax dama leen di bége ku daan nemmeeku ni yoon wiy doxe la moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nemmeeku googu mu daan nemmeeku ni yoon wiy doxe laata muy toog général des dem na itam ci réew mii di Gambie taalibe ya fa nekk yërmande jooju mu amoon ci askan wi rawatina ci taalibey muriti sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yiñ ko dénk ci atum lii di commune rurale bu Touba ñëwoon na doon ko ziyaare si ngir di ko wan si nag liggéey bi ñu tàmbali ginnaaw bu sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke rafetloo ñëw googu commune rurale bu Touba ñëw ci moom mu ngi leen doon xamal ne lii ñuy liggéey de moom moo leen koy liggéeyloo moom nag moo waroon a waru fasam dugg kër yi kër gu ne mu wax leen lam war a def ci dëkk bi waaye comme am nañu ko defal nag sant la nuyoo nag ndax ginnaaw bu mu leen nuyoo asalaamualeykum ba noppi mu ngi leen di béggee la wax ndax sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke ku daa wax baat boobu la muy maa ngi leen di béggee ginnaaw bu mu béggee murid yi ba noppi nag mi ngi wax sax lii di commune rurale bu Touba ne fan yi paase sax am na ñu ñëw ci moom di ko jàmbat ne dëkk bi daal bari na ay ñaaw téef wala yenn ci ay ñàkk worma ñu fi def yoo xam ne mingoo wut ak dëkk bi sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke ma ngay wax keroog ci yërmande gum am ci muri yi ngir bañ benn murid mer muy wax ne de dëkk bii di Touba di képp ku fi yeewoo jox nga ko worma naam la ngay def mu nekk lu a wormaab dëkk bi a xam rek la boo ko xamoon da ko bax muy xam doon wax ñooñu fekk si na leen ci wax ja bisub keroog moom mi ngi wax ne lépp lu wër bi nañ ko fi bàyyi ndax cheikh mamadou moustapha mbàkke ku ko fonkoon la te aar ko mu dul faadal naka noonu cheikh abdou lahad ba ci cheikh abdou xaadir mbàkke moom itam bi mu ñëwee loola rek lay wéyal mooy ndigalul magam yooyu nee na nag cheikh mamadul faadal mbàkke sax waxoon na ne képp koo xam ne nii daal dangay def ay rumbaay ak i mbumbaay ngal la waay ba fi li wër biir corniche bi da dem ba ci ci arrondissement ndaam nga organiser fa saw xew moom itam loola rek lay feddali nee na nag kàddu yi mu yëkkati woon am na nag ñeneen ñu ko dégge woon baneen waxeen bu bokkut ak moom bi mu koy waxee waaye lii rek la ci jublu woon ngir ñu wormaal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke ma ngi cay dolli nag di wax ne am na ñoo xam ne nañ dégge wax ji moom wute naag lool lam bëggoon a wax ñenn ñi nag dañoo jort ne moom daa tere lu sëriñ tuubaa ji waaye daal bu kenn jort ne dalay bundu xataal wala dalay fitnaal ma ngay wax ne am na bis sëriñ tuubaa seexul xaddiim di wax ne fat-fat de tàggaliwut ak mbaam ak i noppam nee na loolu moom wax ju yàqu la ju olof njaay daa wax waaye mbaam jéemuta dindi nopp ya li ci biir nopp ya te dugg ca te dëkku ca la bëgg a génne loolu moo tax muy fat-fati muy xamal murid nag ne li muy tere léeg-léeg loolu rek moo waral yenn kàddu yi waaye ñu xam ne maanaam jubluwu ko ci kon bëgg murit yi ba ko loolu rek la jublu ci kàddu yi fat-fat tàggaliwut mbaam ak i noppam mu indi na kàddu yi sëriñ Tuubaa yëkkati woon ngir jagleel ko ñenn ci mag ñim doon waxtaanal nee na lim fiy tere rek dafa fekkoon ñu di ko fi tere jaay jëf jaay jëf boroom yërmande ji ñu teewlu kàddu yim yëkkati woon keroog ñu ngi leen di nuyu bu baax oh, di bu baax di leen te di leen sant bu baax itam nee na am na sax lu mu waxoon. loo xam ne lu doon soññi boobu. nee na boobu da da doon soññee rek. ñu bàyyi di ma ko tawat ne dafa am ci dëkk bi. nee na booba dañ dañ ñu bari dañ ko doon tawat di dafa am ci dëkk bi. léegi ñi ko wax yéen wuñ ko dëkk bi. te ko doon wax la ñu gis yëlale wuñ ko dëkk bi. yoo xam ne waaye def. ñoom hmm. koo xamul wala sa xel cee di moom ko fàtte. amul kenn ku mu ngi ko jiw. waaw nag xam na lépp lu waay def ci dëkk bi dafa fekk sa sam xel ci demut wala da koo xamut waaye kenn ku jublu def lu yëllawut ak dëkk bi amul. wax ma dama fa jëy jëy wax ji. nee na mu fekk leen ca ak wax ji. waaw ñaar mooy bëgg rek. Mhm. ni ñu tuddee kur nii. bu koy bu kenn mhm. jàng wax ci bu jiitu nee na woon. lii nga xamante ne maanaam mooy corniche bi wër. kenn bu mu ci def lu dul jàngum xasida. loolu itam ñëpp déggoon na ko. te loolu nee na loolu ñëpp déggoon nañu ko. waaw ma fi aar ñu fi ko ñoo fi jiitu woon. waaw ñi ko fi jiitu woon ñëpp aaroon nañ li corniche bi wër jumaa ji. sëriñ Tuubaa mi fa sancoon. sanc boobu ci ci mu fi déggoon mu fi fekkewoon wax nañu ñu daa wax ndaam mooy dajewukaay bi. sëñ Fallou dafay dafay dafay dafa dafa waxoon ne lépp lu ñuy daje nañ ko daje foofu ci arrondissement Ndam. loolu sëñ Abdoulaye daa wax. sëñ Abdoulaye loolu la waxoon. loolu rek laa doon wax. nee na loolu rek la doon wax. jërëjëf. lu daj murid yëpp. lu daj murid yëpp. ñu ko du du du ko sant ci wax ko war a waxee. Touba gi laa lu daj murit yëpp moom mënu koo santaane ci lu dul waxtoom ko war a waxe waaye lii mu doon wax nag Touba gi li ci jublu woon te weesu wu doon loolu war maa Serigne Touba rek am na ay dégg-dégg ñu hmm. mu dégg lu hmm. ma fekkee bi moom nee na nag am na ñoo xamante ni maanaam nañu déggee wax ji da dafa mel ni bokkut ak noona ndax dafa mel ni maanaam dañoo jàpp ni dafa am lu muy tere lu mu daawul tere wala mu am lu mu digle lu mu daawul digle. te loolu amu ci. te loolu amu ci. sëñ Tuba waxoon. la sëñ Tuba waxoon rek. nii. nii dafa wax ne. wolof dañoo wax ne mbaam pot pot dañoo wax ne. Mhm. pot pot ba dott càggal bi mbaam ak nopp bi. Mhm. Mhm. dafa am loolu. waaw nee na wolof dafa wax ni. maanaam fot fot tàggaliwul mbaam ak nopp ya. loolu wax ju yàqu la. waaye nee na loolu wax ju yàqu la. fot fot jamuy def. tàggoo nopp yi taxul. bëgg a tàggoo ki noppam taxul. leneen ci leneen ci nopp yi te dëkku ca. leneen ci nopp yi te dëkku ca. looloo ko tax di fat fat. loolu waxi sëñ Tuubaa la. waaw moo tax muy wax lu ci jëm. Mm. jërëjëf. tey moom dara day wax ne xatal taalibe wala xatal julli wala xawatal addina bi nee na tëriwul dara loo xam ne day xatal taalibe yi mbaa muy xatal jullit yi mbaa muy xatal addina bi yërmande jooju sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke amoon ci jullit yi ak taalibe yi ba di ko doxal ak di ko wane saa su ne ci ay kàddoom ndax balaa kàddoom a jeex rongoo ñoom tuur ngir bëgg gum bëgg murid yi ma ngay wii ci wax jooju di wax ne am na benn bis mu dajale lii di sëtam yi ak doomam yi jiital bi ko sëriñ tubaa jiital ci kaw murid yi loola daal da ko fas yéenee ànd ak doomam yooyu ak sëtam yi mu leen di xamal ne jiital googu ñu ko jiital dafa fas yéenee ànd ak nag taxaw xaar leen bis buñ ko jiitoo itam mu fas yéenee daw dab leen bu demee ba gisu leen itam dana taxaw xaar leen bañ ñëw waaye fas yéenee wut a dem menn moom dong nag ngir ba ñim séqal sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu lu kàddu yi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati te kàddu yi keroog ba mu koy yëkkati laata kàddoom di daanu rongoñam tuuru na la ma waxoon doom yi nee na la mu waxoon doomam yëg sëtam yi ni leen ni leen li ma sëñ Tuubaa jiital ci yéen li ma sëñ dama koy ànd ak yéen. dama koy ànd ak yéen rek. ci kaw. ci kaw. ñii ji ñii jiite jiital. ci kaw jiital gi ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. boo jiitu dama leen di gees rek. bu ma jiitoo. dama leen di gees rek. di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma di taxaw nag leen rek. mu seen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ma yéen. dama leen di jël topp yéen. waaye. kon kon kon bu ma bu ma ràññee ba jëlee damay dëpp bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. daal lu yàq waaye damay mu mu jiitoo. daal lay yàq diine maa mu yàq kaay maa mu yàq addina. Mm-hmm. du ma ko def. waaye man de bu ngeen ma jiitalee. dara lu yàq diine mbaa muy yàq taalibe mbaa muy yàq addi du ma ko def mukk. waaye eh, waaye may doxit rek. waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet séenoo seen gisuma leen si ma ma wàññi ma wàññi ko wut si leen. bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye du duñ tàggoo mukk. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbi nañu ci biir lool nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. yàq loo wala diine du ko du jóge ci moom mukk. ànd naa ñëpp. ànd naa ñëpp. kon jërëjëf bàyyi soxna waalo ba tey ci kàddu yi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yi kàddu nag la mujjee yëkkati ci ab discours bu mu def jagleel ko mbooleem muritu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yi nga xam ne nii dénkoon nañ ko ko ci atum 2007 la ko def ci bisub korite bi mujj ci ak xilaafaam mi ngi dëppoo woon ak benn fanu korite ci atum 1428 ci gàddaay gi dëppoo woon ak muy 13 octobre 2007 Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ci déclaration bi mu mujjee def ginnaaw bu mu nuyoo ci assalaamu aleykum nee na mi ngi nuyu moroomu jaamam yi muy ñim bokkat lislaam bi di nuyu itam mbokki taalibey boppam yi mu ñim séqal xaadimu rasuul ma ngay wax ne mi ngi fàttali boppam di fàttali moroomu jaamam yi muy ñim séqal lislaam bi ak mbokki taalibeem yi muy ñim séqal xaadimu rasuul ci li ñu fi indi muy jaamu suñu boroom nee na moom mi ngi tuub di tuubaale mboolee mbokki taalibeem xéewalu suñu boroom yi mu ne suñu boroom da ko fee def ngir leel ko mbooleem jaamam yépp amu ci xajj ak seen moom kay li muy sàkku mooy ñu laaj ko ko buñ ko ko laajee mu joxe ko kon nag amul benn jaamu suñ boroom bu gën a foor laaj ko ci xéewalam yi mu jox ñu ko nee na xéewal yooyu nag mi ngi koy laaj suñ boroom di ko laajaale nag mbooleem mbokki taalibe mi tey wax taalibe yi na ñu gën a farlu nag ci jaamu suñu boroom ak fonk nag sunna si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax kat loolu dong nag lañu fi suñ boroom wàccee ngir ñu jaamu ko mu asakay mbay la muy bay mi noppi na nag nañ génne lii di asaka bi te itam na ñu gën a farlu nag ci fonk suñu boroom ngir fonk nag julli juróomi dem màkka ci ku ko man loolu itam mi ngi koy fàttali murid di ngir ñu def ko mu ne nag ñu jégguluwaat suñu boroom bu baax a baax a baax jéggulu itam nag suñu moroom yi muy àq yi ñuy séqante ñun ci suñu biir kenn ku ne nag la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom kenn ku ne nag la nga bëgg jëflanteek sa bopp nga tàmbalikoo jëflanteeg sa moroom ku ko def nag jàmm moo ciy njëkk moo ciy mujj nag bépp ñaaw téef boo xam ne mi nit da koy def ngir topp bakkanam mu ne nag jurul tudd benn ñaaw téef ndax kat suñ borom bu fekkee ne day tudd say ñaaw téef moom dalaa bëgg a jéggal waaye bu fekkee sa moroomu jaam kese la nag buy tudd say ñaaw dalaa bëgg a weer kon nag jërut nag ñuy tudd ay ñaaw téef béppum ñaaw téef boo xam ne daal topp su dong la nañ ko jéem a bàyyi te suñ borom jéggal ñu ko kon yii kàddu la tàggutoog murid yi ci korite gi mujjee fekkee bi ñu ci tegee ñaari weer yu teg ay fan la génn àdduna moom Sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke fukki atam ak ñaar ñu teewlu kàddu yi mujjee yëkkati ci discours am jagleel ko murid yi ak taalibe yi. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. maa ngi nuyu sama mbooloo mi jaam yëpp ñu bokk ci biir yi maa ngi nuyu sama mbooloo mi taalibe yëpp ñu taalibe maa ngi fàttali sama bopp di fàttali sama sama mbokki taalibe ñu fi sama borom li ñu fi sama mbooloo mi jaam maa ngi yokk ndimbal yàlla ak xéwal yàlla yi maa ngi da koo def ngir maa ngi ko jaam yëpp amul soxla tab bi jeexee te bëgg ko laaj yaa ngi fi koo jaay lu gën a lu gën a kawe laaj ko lu koy laaj xëy ak sant ko saa ko jël mu sant ko jaamu ko ak mu sant ko maa ngi sant sant ko jaam yëpp ay fàtte nag moom boo yàlla sama borom di ko jégalu yàlla sama borom xéwale yi nga xam ne moom moom moo ko jàngale ba digg digg ko laaj tam bu dul jeexee te bëgg tam bu dul jeexee ko laaj mu koy laaj mu yokk dimbali dimbali suñu diine lislaam yi fekkoon ceeg ndimbal maa ngi fàttali waxtu yi maa ngi ciy fàttali fàttali asaka asaka yi may waxtu yi la ñëpp pense yooyu su ko yoon jëme loolu saa ci xaalis yi foqaay loolu saa ci عامل ak réer benn bànq góor-góor rek ak ñu ko faral di julli juróom àcc ñu ko mën ñu ngi koy góor yëg yu baax ne yëg sunu borom yëg leen sunu borom te yëg yëg leen sunu te gone nga da ngay yéene ko sa borom nga bëgg ko jëfante yow nga daamee nga gën a seet la yow nga gën koo seet la nga yeewoo. ak taayiban bi asaaba maa ngi yaay seet la la war ten ko seet war ci yow maa ngi fàttali ñi nga xam ne itam moo yóbbu nas yi yëpp moo yóbbu nas yi yëpp moo ngi koy fàttali di la tudd la tudd ay waaye sa morom bu gis sa yëpp dara bëgg a weer sa borom bu gis sa yëpp dara ko bëgg a jégal kon nag moom moom dana seet suñu bopp rek yëpp jéggul kon yooyu kàddu la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mujjee yëkkati ci nekkinam wala ci déclaration boo xam ne nii soxal na boole murid yi ba tey ci liggéeyub sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke lii di camp sapeur pompier bu Touba ci xilaafaam la fi ñëwee li di service d'hygiène bu Touba itam ci xilaafaam la fi ñëwee ñaari hôpital ginnaaw bu ndaamaato itam ci xilaafaam la amee muy hôpital Matlaboul Fawzeyni ak hôpital bi nga xam ne nii moom mooy hôpital bi ñu duppee Serigne Mbacke Madina lii di kër Serigne Touba itam bàyyi na ko ci ñaar fukki kër ak juróom ñett morgue bu Touba itam ci xilaafaam la ñëwee sëriñ habibu mbàkke imaam itam moo ko defoon imaamu jumaay tuubaa bi fi sëriñ habibu mbàkke bàyyi ko ci atum 1993 itam sëriñ maamun buso itam moo ko def imaamu tuubaa lii di police bu jannatul maxwaa itam ci xilaafaam la fi ñëwee bi ñuy dëddu bàyyi nañu fukki milliards ak benn ngir yeesalaat tuubaa moo xam ci côté bu ne lamp godronge ngir murid yi man di jaabande ci dëkk bi saa bu leen neexee te duñu am benn jafe-jafe ka yërëmoon murid yi yërmande sëriñ tuubaa seex saaliyu mbàkke ajjuma ju jot mu wàccilu lii di ay kaamil ci lii di jàkka yi ak jumaa yi boole kook nag di sarxelu ngir benn murit wala benn jullit bañ a am benn jafe-jafe ci àddunaam kiñ doon wooye boroom ndokka boroom mbuur boroom koom ak boroom jannatul maxwa sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke lu kenn musta xalaat ci moom mujj am muy dëdduñu ki mujjoon ci doomu sëriñ tubaa seexul xaddiim yi ci bis bu waxoon na buñ xëyee nañ jàng lii di alxuraanul karim ñépp xëy yeewu yëg na ku baax ki sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke dëdd nañu biig ci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 ci penku jumaa ji doomu soxna fat jaxate ak sëriñ tuuba seexul xaddim ci juróom ñeen fukki atam ak ñaar lañu dëddoo ki desoon ci doomu sëriñ tuuba seexul xaddim yi ki mujjoon ci njabootu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim boroom yërmande ji te sëriñ muhammadu jóob dagana wutali woon lii di aw tur ci njaareem ay xalifaam nag ñii la tëddee ci le 28 décembre 2007 ba nëg ni kam duppee waajuróomam wa di sëriñ tuuba xaadim rasuul moo ko wuutu muy sëriñ cheikh moom sëriñ saaliwu mbàkke ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam yam ci njabootu sëriñ tubaa yu góor yi ak yu jigéen yi te ndonal sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke itam yàlla na yàgg ci seen loxo ak barke ba sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke lii ñu tuddee ak màggal amugul nag ci lii ak njabootam waaye nag am na ay bis yoo xam ne taalibe yi ak soppe ñoo ko jagleel muy liñ tudde sant sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke yi ñuy ñaan ci doomu soxna faat jaxate ba ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ki amoon yërmande ci taalibe yi yàlla na ko suñ borom fay te yokk ay leeram wanale koog waajuram wa xaadim rasul amin rasul amin